jam bawa dufar majum nyezala Bagare daramam aram lo kumbaja de benda bëgguma benda makka bu maalis ak jaliyaa bu maalis maane bu maalis ak baylaa bu maalis lokuba ja njogu fama baisilanya saba man maa ngi tudd Khady Diaw dëkk fii Touba Ndamane euh, après tout xanaa kontaan rek di wax alhamdulilah rabbil alamin ndax suñ borom fekk la waat euh, at mu bees mi di nekk suñu feet ñun jullit yi tey nag ñuy wax bisub Hansoura ñu waxee Hansoura ñu xam ko ci tamxarit tamxarit nag jullit dañuy baaxoo di bégal seeni njaboot waajur yi ñëpp dañuy kontaan daal <laughs> ñun comme ça ñun ay njaween lañ xam dañoo xam lu baax moo tax ñu dem marché tey préparé ko ànd kook suñu waa kër comme tout le bi ñëpp rek pour ñu kontaan. cere nag soo suñ ko waxee xaw naa naqaree defar xaw naa neex a defar ci ku ko xam ndax démb bi nga ko démb lañ jël dem jël dugub ji ñu dem yóbbu ko si machine bi ñu walal ñu ko ñu soqal ñu ko bi ñu ko soqalee biñ ma ko indilee après ci laa ko sebeti boole ko ak mboq mi defar ba mu baax ñu dem defoon ma ko sunguf bi bi ñu ma ko defalee sunguf bi ma yeewoo ci laa dem nag jublu si mooñ bi. xam nga mooñ bi tamit dafay jël temps ndax pour le sa danga koy dawale suuf see yooyu ndax su xajamee du neex a lekk ci nañ ko mooñ ak fii daal fexe daal ba moderniser daal xam ne tamit euh, euh, kenn ku ne euh, chaque am na am na kiyam culture am ñun Sénégal li ñu gën a xamee mooy mbay affaire agriculture plus précisément mooy dugub. kon nag ñun nag fii dañoo baaxoo nekk kër gu mag nit ni ñu yaroondoo fi ak suñuy bàjjen suñu waxee bàjjen mooy suñuy tante suñu soxla su papa may sama awa papa ak ñaareel bi ba sama yaay ak ñett ak kii bi euh, léeg-léeg man ni ma fexee ba man mooñ suñ sëriñ bi suñ Thierno Diaw des fois daan joxe ay santaane euh, mooy quantité dugub yu bari su ko defee dugub yi day nekk ay saaku mais dem di ko wallu di ko def ay cere yu bari ba di ko di ko di ko lay xam day dem ba quantité bi da leen sonal ci la profité nag su ma ñëwee ne sama bàjjen ma mooñ mooy tere mu jigi mu ci lañ ma jàngale ba tey ci laa ma lii mooy ku bëgg rek kii aime quelque chose fait quelque chose maa bëggoon a man moo moo tax ma sonn si loolu message bi leen lancé mooy que nit ki tamit lañu jël ci xam-xam bi li baax si ñoom rek te bàyyi leen li ci des kenn ku ne nag dëkk boo gis am na ay réalité ñun suñu réalité mooy mbay mooy nan la ñuy defaree dugub nan nan la ñuy kiyee sama morom étudiante yi daal mooy que jigéen moom dafa war a góorgóorlu nekk responsable responsable mooy day nekk responsable dans tous les domaines mën a togg mën a mooñ mën a araw ndax xamoo tey ki la yàlla dasee leel ban la bëgg ban mooy préféré moo tax waroo jiggaani lépp dangaa war a mat euh, insaanul kaamil dangaa war a mat ci côté yëpp daal waaw ndugg baa ngi nii macha allah xaw naa cher ndax ak nawet bi fi mu toll mais nag euh, ñun moom lépp li bégal njaboot gi rek dañ koy def ndugg bi mi ngi composé ci plusieurs éléments parmi lesquels on fii comme ça tey euh, dama dama jënd ginaar ginaar lay togg boole ko yàpp yàpp tabaski bi pour aada mhm. xam nga <coughs> bu njëkkoon mag ñi dañuy soxla yàppu tabaski bi pour ñu bàyyi ci benn quantité ndax xamul fi jamonoy toll ak euh, mois de août bi dëkk bi neexul moo tax ñu jël yàpp tabaski def aada rek boole ko ginaar yi ginaar yi nag dafa war a composer pour mu saf ginaar yi pour mu saf day day day soxla euh, li ñu naan roof nga roof ko ba mu baax roof bi nag li gën a am solo pour xet beeg yëpp day soxla laaj kante laaj bi dafa war a bari laaj bi ak euh, mu laal nga laal si guana euh, comme ça guana bii nii mu gën a saf ak euh, kaani kaani kii kaani salade tamit day dañ koy soxla ci roof bi yëpp dañ koy soxla si roof bi après nga laal ci tuuti kimmas yi pour mu amal ko pour mu amal ko guub tamit day soxla tamit jinjeer nga laal ci tuuti persil am loolu tamit dañ ko soxla daal ci ci kii bi roofu ginaar yi ak ak ak ak yàpp bi suñ paree ñu jublu nag ci cere bi cere bi euh, dañ dañuy dañuy baaxoo togg ñax bu xonq bu kii daal moo tax ñuy soxla tomate podor tomate podor bi dañ ci dañ ci jël benn quantité ñu def sauce à pour pour pour kii bomb bi ndax ñu dañuy dañuy bomb cere bi bomb cere bi nag day soxla lañ naan lii di araba la araba bi dañ ko ciy soxla li haricot vert bi tamit euh, dañ ko ciy soxla ndax tamit da koy may dugub te soo ko ci dajee daal boole ko yàpp bi comme sama mbokk si kenn nañ ci kontaan tamit dañuy soxla tamit euh, poobar ndax euh, da koy gën a may guu daal soo ko kiiyee comme santé comme si supposons rek ngay togg vermicelle comme ni muy soxla ay marinade da koy soxla pour pour pour pour goût bi gën a génn en même temps tamit dañ day soxla tamit raisin raisin bi dañ ko siy def daal loolu daal cere bi daal lay xajam du yomb cere bi daal du yomb daal xam nga nag tufe moom yomb naa toog comme ni ko ñëpp mane mais dafa am loo xam ne dëkk bu nekk comme ni ma ko waxee woon rek dafa am lañu leen a xàmmee ndax suñu ne Sénégal lañu naan affaire agriculture agriculture nag mbay moom dañu naan ci lañ ko taamu ndax ñun moom la ñuy xamee te machine ba soqi dem ñëw sebet yi walluwaat sunguf bi di ko teyaat xam nga loolu lépp ay coono la coono boobu lañ ciy daw mais nag euh, coono boobu yow yaa koy liggéeyal sa bopp mu nekk liggéey bu sell bu boo xam ne dafa barke daal ñu yokk góorgóorlu daal xam ne daal euh, Sénégal daal am nañ ay cosaan suñ cosaan nag ñu bàyyee ñu ko daal ñu bañ jéggaane bu ëpp bi euh, étranger yi moom daal moom nañ di côté bu ne daal. ginnaaw bi sant yàlla julli ci yonent bi di ak suñu ñaari waajur di leen ñaanal ak gudd fan ak wér-gi-yaram ci côté yëpp. di ñaan euh, feebar bi nga xam ne nag moo moo lëmb réew mi sonal ñu lool arrêté économie beeg yëpp suñu borom génnee ko fi comme ni ko suñ sëriñ bu tedd bi waxee suñ Mountakha Bassir yàlla yàggal ko fi xam ne daal jamono yi jafe-jafe yi metti na yàlla na ko suñu borom jëlee defal ñu atum xéewal atum naataange dans tous les domaines xam ne daal gil yëpp soxla nañ ñaan yi monde entier bi sax la ñuy wax ndax fépp la laal affaire bi fépp la laal di ñaanal suñu sama sama grand yi ñu nekk Europe. ñoom ñëpp daal sama waajur yi di ñaan suñu waa kër surtout suñ sama jéggi baax ji nga xam ne ñoo wax dëgg fa macha allah yàquñu fi dara daal di ñaanal jullit yëpp. ah alhamdulilah loolu la loolu la bépp jullit di ñaan nag ndax euh, pour nga nekk responsable moom il faut nga am sa borom kër. nga nga nekk foofu noonu di xamal lii tey def ko sa kër baay neex na lool waaye nag nga defee ko sa kër moo ne moo dàq sa kër jëkkër daal moo dàq xam naa loolu moom ñu ngi koy ñaan ti tamit ci barke Serigne Touba am murit bu baax rek. Mhm. Euh, UCAD nag université Cheikh Anta Diop moom mi ngi foofu ak ay réalités malgré njàng ma métti na lool ak condition de vie mais on euh, dañ koy dañuy góor góorgóorlu daal xam ne daal euh, kuy sàkku xam-xam moom xam-xam dafa ànd ak coono coono. état nag jàmbaar la ndax mi ngi def mi ngi mi ngi jéem di satisfaire suñuy besoin dans tous les domaines ñu ngi ñu ngi lekk comme ni nga ko waxee ci resto yi di ran <laughs> di tëdd ci tëddaayu xat yi ma bokk ñu baax nag di may laajte waa les messages waa chambre 80 ak 77 ñu solidaire solidarité bi ñu dund foofu macha allah dañuy togg comme nii partagé daal xam nga daal wut xam-xam moo ñu fa indi moo tax nag ñu ko fay sàkku ci xam sàkkuñ bu gën a rafet. ak jàmm ak salaam daal. waaw man maa ngi tudd Khady Diaw fi fii Touba